sama euh, fiancé bi teel anniversaire am. ah man de am problème. defoon ko benn surprise boo xamante ne moo ci boppam daf koy jëlee kaw. est-ce yow am yaay baadoo la ak li ma def ci yow lépp. moo tax la yaa bon. yow sañ nga maa def nii yow. salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars yi sama xarit sama Abdou jaam yi man la seen maître Maimouna maa fi dellusiwaat ak yu bees dàq cette fois ci nag góor laa leen fi indil ma bëgg nag mu wax ñu nuyonteeg moom mu wax ñu ay jalooreem ak yëppam na nga def sëñ bi. oui ça va soxna Maimouna maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax. yàlla na jàmm yàgg dañoo buggoon nga wax ñu tuuti rek ci li nga xamante ne moo tax nga seet suñu. oui bon aujourd'hui moom je suis là par rapport ak mon fiancé quoi elle s'appelle Aujourd'hui, bon, je voulais des investigations par rapport à Arsène Digende, quoi. Mhm. Parce que, bien vrai que j'ai une, c'est une femme. Bon, c'est une femme que j'aime, que je t'adore. Mhm. Parfois, on s'entraide, genre et tout ça. Mm -hmm. Mais, les coachs coach Barma dit, Digende, ça parle de boulot. Avec les plumes, par rapport à. yëpp yu may defal genre ak li ñu seek man ak moom yëpp mhm. ci lu du ma ko jox lépp à cent pour cent quoi mais tey jii dama fi ñëw pour leeral quoi parce que dama bëggoon xam ba xam gênant il est fidèle ou parce que dëgg la nekk nañ mhm. mais parfois xam damay gis yenn yoo xam ne nii je sais pas quoi ah, gëmuma nii gênant mi mooy loolu léegi dama bëggoon xam ba xam gênant il est comme sama gars yi ñoo ko dégg noonu mais man leen rek moo ma jaaxal nan ngay mënee am copine te doo am confiance ci moom oui ça parlait parce que jigen bon jigen dafa doy waar quoi jigen kenn mënu ko xam quoi en fait. ah taxawal nak fofu mom dama lay taxawlo parce que jigen ñep bokku ñu yam ndax jigen ñu bax ñeen sen penku yaay te gëm naa ni zayna bobu ngay wax nit ku bax la nak li nga jot wax ci mom jigen ñep yemuñu. oui c'est vrai bon elle est gentille elle est courageuse bon nit ku bax la et tout ça xam mhm. mais parce que jigen do ko jox lépp quoi parce que. tu vois quoi parfois da ngay seetaan yenn série xam nga mhm. parfois ngay setan yenn genre yu ci mbedd ak affaire yo non mhm. ñaata nit nga gis ni ki tromper ni ki en fait da ko bëggoon ñoom ñaar bëggante woon nañ mais on sait jamais quoi tay ji mën nga bëgg nit en fait tay ji ngeen dem ba si yàgg yalla bu ne du ngeen and du ngeen add mais tay ji di nga bëgg nit en fait moy lool mhm, mais so bëggee xam ba xam dafa fidèle mën nga def say investigation lool dara nekk ci parce que lool day gëna dëgeural seen seen seen and quoi c'est ça quoi essayer ñu maa ngi moom dama ya bëgg ñu gën a jàppalante xam nga ah, centre aide xam nga essayer de réconcilier xam nga essayer de trouver des solutions pour suñu avenir xam nga ça quoi loolu laa ok ñi ngi rafetlu bu baax li nga wax tayit yaakaar naa ne góor gu bëgg takk jabar bëgg jabar ju baax it li nga def foog mu def ko ndax jabar dañ koy tànn dañ koy xool mais ci biir loolu ma bëggoon jël numéro xale bi comme ça ñu mën cee waxtaan ñu xool ba xam ndax li ngay wut ci moom mi ngi ci wala déet oui bon bu ngeen bëggee bu leen bëggee tamit bon mën naa la jox numéro bi nga bon ngeen jéem a essayer de rejoindre c'est ça naa la jox numéro bi et tout ça xam loolu moom je sais pas je sax pour jox la numéro bi loolu dara woy jëlal mën nga jël numéro d'accord kon dañuy jël numéro xale bu jigéen bi woo ko léegi jël numéro bi comme ça ñu ko ok amul Okey, dua Allô Oui. na nga def soxna si. ça va bien man ci jam. ba yaa ngi am jàmm. Ma ngi ci jam, ba. Wa dama amone ben cadeau bo xamne dama la ko waroon a cadeau. waaw waaye ji nga xam ne moom nga gën a bëgg ci sa àdduna ah. moo la yónnee fii kado moom war la koo indil ah, tur bi nan la man ah d'accord waaw comme ni ma la ko waxee rek ki nga gën a bëgg ci sa àdduna moo la fi envoyé benn kado mu war la koo indil Ah. muy kat. muy danga Hadj. non da xoolaatal ci copain yi nga am. copain. aha. mais xoolal rek xoolal da nga juum xoolaatal bu baax a baax.

lol dal yañ ngi ci mënoon leeral bu baax pour ñu jox lako mais comme né nga élage bi kessa la te nee la du élage bi man xamatuma ci dara ko bé de ok mais yow kii coupé nañu di <laughs> ah la coupé quoi coupé nañu di oui moom vraiment moom discours bi ngeen discours vraiment ça me prouve que ni elle est une femme fidèle elle est une femme vraiment je bëgg naa ko trop damay ñaan yàlla rek xam nga li mu bëgg yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla def lépp mu baax quoi waaw yàlla na yàlla matali lépp koi c'est ça quoi nit ku baax la vraiment en tout cas kontaan naa trop pour yow ndax xam naa ne dute nga ba bëgg a dee ba tax li tax nga ñëw fii tey jii lépp leer na defe naa war nga am contact contacté gu neex a neex a neex mhm. je suis de toi yaay kon yéen a ko gisandoo gis ngeen émission bi tay aujourd'hui def nañu lu formidable def nañu lu neex jigéen ñi tey defar nañ seen bopp ba mu baax setal nañ seen bopp ba mu baax te lii laa bëgg saa bu ñuy def ñu di ci am ndam ñu xam ne jigéen ñu baax ñaa ngi fi. tay daal kontaan naa trop ma leen di bàyyi nag ngeen di commentaire di aimer di partager wax ci seen xalaat pour xale yu jigéen gën a xam fi ñuy teg seen tànk ndax góor gu baax am na ni jigéen ju baax amee kontaan naa trop ñu bàyyi leen ba beneen yoon merci beaucoup léegi nag. xool nga gis nga ma lay ñaan leen mooy nga partager te aimer